nga xam ne moo di Babacar Diagne jamono ji daal dina koy xamle nekk ci dynamique bi nga xamante ne sax ministre bi nga xamante ne moo di Alioune Sall amaloon na ko ndax ab plateforme boo xam ne daal dañuy yeesalaat wala sax képp koo xamante ne nii média nga nga daal di fay inscrire ngir que ñu xàmmee kenn mooy média ak kan moo nekkul média Moustapha wala loolu nag euh, ami lu am solo la parce que mm-hmm. ñun ñi ñoo ko gën soxla parce que da ngay gis kenn koo xam ne dafay teg taabalam di jaay di jaay di jaay ba si yàgg rek géej yokk yët yokk mu xëy suba jënd benn plateforme site internet toog biir këram toog biir këram waaw noonu lay demee de am yi day taab taabalam di jaay yu sew waaw toog taabalam di jaay yu sew ay géej yi yët lay jaayee <laughs> paañ yoxos xam nga dem ba si yàgg rek njaay mi doxatul mu ne mu romb ami nekk ami caméra ñaat lay jaay ami wax ko <laughs> mu jënd benn caméra am ne xale ñoo leen toog ci salon bu ngeen xëyee ngeen toog seet benn doomam bi nga xam ne bu xëyee du def dara mu ne koy boo xëyee boo nekkal ma chroniqueur doom ñi nekk chroniqueur la la preuve autre bu ñu gis ci sit ci ci ci kii ya sit ya hmm. <laughs> gis nga léegi nag loolu Alxatar TV yow TV amu ci gis naa ci Amina TV <laughs> ami laal nga yow après nañ déggante ñun ñaar amee. ki ma amel bor laal. <laughs> à dégg naa laal na onze dina ma fay damay dem njëriñu bor bi. ah à suivre <laughs> léegi ngay ngay ngay gis kon euh, li ñu def noonu. lu am solo la. parce que dañ demoon ba dafa mel ni kër goo xam ne amul bunt fu waaye jaar dugg. léegi ne dafay baax na ñu régler ko mais naka lañ koy régler. Mhm. donc pour man foofu la foofu foofu la débat war nekk naka la ñuy def bari la li nga xamante ne moo de presse bi eh, parce que c'est c'est très important mm-hmm. tey jii kooku nga xamante ne tey jii dafa toog ba toog amatul lu mu def rek mu dajale ay doomam ay nitam wala ay xaritam mm-hmm. ni leen léegi damaa ubbi seen benn site internet jii je pense que euh, bu ñu redressé mbir mi jooyantu ko am am nuñ ko defaat amaana day jël matériel jaayaat ko mm-hmm. euh, parce que dootul bokkat si ñoom ne dañuy exister si presse bi loolu moo tax ma jàpp ne lii nga xamante moom la ñuy def nii lu am am solo la. Mhm. maintenant léegi nag façon bi ñu koy defee moo pose problème. Mhm. parce que dafa am ñooñu du ñu jàpp ne CNRA du ki nga xamante ne moo war a yi parce que moom CNRA si boppam acteur presse bi dañoo waxtaan ñu dañuy indi ARCA ARCA mooy euh, haute autorité des communications audiovisuelles. Mhm. mu ne dañuy indi ARCA su ko defee mu tënk ëmb xam nga CNRA ñu ngi ko ñu ngi ko sos CNRA Abdoulaye mm-hmm. Wade moo ko fi indi en 2006. Mm-hmm. bi mu ko indee 2006 mi ngi mi ngi remplacé au conseil de l'audiovisuel HCA moom la remplacé woon léegi bi CNRA ñëwee boo fekk na presse en ligne bi daanaka 2006 fii kenn kan mu fi xamul site internet ak Facebook yooyu noonu. bu ñu amee woon tamit. fekk melutoon nii noonu melutoon nii. léegi nag dafa am lu ñuy ay médias sociaux am presse en ligne. Mm-hmm. léegi ñooñu CNRA dafa mel ni dañ ko dañ leen a dab. Euh. léegi moom réadapté wul ba pare mu wëlbati ko bëgg leen a lijjanti woon. prévoir uñ ko woon léegi loolu moo tax tey jii c'est vrai naam article 94 bu code bi la utiliser c'est vrai mais dañ ne moom mi ko utiliser ndax moo ko war a utiliser

parce que si article bi la sukkandiku indiwul lu bees loo xam ne daf leen koo tegal mhm. maanaam dafa dem jële ji code de la presse mu ñëw def ko mhm. moo tax ma jàpp ne tey ji appel ñun ñi ngi jóg bëgg entamer benn bras de fer ak CNRA. kan appel waaw mooy association yi nga xam ne moo ëmb éditeur presse en ligne bi euh, presse en ligne bi mais dama jàpp ne ji li jiitu mooy ni ñuy jéem jiital waxtaan moo gën. Mm-hmm. mais bu ñu jéemee sumb bras de te ñëpp xam ne te jii bu fekkente ne dañ jàpp ne CNRA amul prérogative wala amul taxawaay te tant que déciduñ CNRA war na ko mën parce que autorité de régulation la. Mm-hmm. donc loolu moo tax ma ne il faut que ñu jiital waxtaan xool naka la ñuy def sinon bu ñu dugg ci bras de fer rek mën nañu amaat problème parce que l'idée elle bon l'idée est bonne parce que le fait que ñu jéem a assainir euh, presse bi parce que depuis ce matin. maa ngi gis mais mën nañu ne Sénégal ci dynamique gu Aliou la nekk sax parce que. moom moom gis nga ne ndogal yi nga xamante jël na ko. pour mhm. presse bi euh, gis nga liste bi ñu fësal. yàggoon na deux ak ñu toog ba heure bi moom ñi nga xam ne ñoo ne gouvernement bu bees bi ñoo ko daal di fësal ay chaînes yoo xam te ne danga naan est-ce que sax existé na ba nit ñi di retaan naan ñun. Euh, Qatar lañu ay Jazeera. ak Jazeera ko ci. Jazeera bokku Jazeera nekk mbedd mi TV. Sénégal bari nañ jublan nag imagine léegi ak tamit presse yi nga xamante ne seen liste génn na bi wax nañ seen tur te encaissé wuñ. Mm-hmm. mais mais xam nga daal dama ne sit yooyu ñu wax noonu bu ñu waxoon tur yi si ginnaaw lañu nit ñi di comprendre. est du ay prête non. yooyu lépp a ngi ci biir. Euh, lépp ngi ci biir xam nga man tey ji mën naa nekk ci biir. fa ñuy seetlee cela veut dire que moyen wu sàcc xaalis dañ ko defoon Moussa Fa. waaw mais boo déggee ñu ne boo déggee ji par exemple assise assise de la presse ñu ne cinquante millions dugg na ci. ba pare ñoom ñu séddale ñu ne cinquante millions dugg na ci communication ban communication fan lañ communiqué ku ñu communiqué. moo ma jaaxal. xam nga yëpp ay ay ay problème la. convention des jeunes reporters ñu jox nañ leen quinze millions appel ñu jox nañ ko cinq millions. correct ñu ne jox jox nañ leen. mais mais pour man lii buñ ci taxawee dina am ñoo xamante ne faw ñu dem leeral ji koppar gi fan la dugg. ki doon inscrire presse yi la. ah mais ministère de la communication moo ko doon liggéey. ko doon bind.

près de deux milliards la un milliard sept cent comme ça léegi ngeen bëgg ko def affaire affaire copain et de coquin yi. waaw taf yëngal ko bokk ko séddoo. loolu bu leerul kii jël dem kële jël dem. moo tax moo tax ma ne bi liste bi génnee jeune reporter yu bëri am nañu raison désolidariser woon ak patron de presse yi. non mais bien seen grève yi parce que da ngay comprendre ñii ñu si bëri seen bopp lañ fi nekkal. te am na ñoo xam ne sax euh, ba ñu génnee liste bi la mais mais li si gën a garaaw ñeneen ñi démb démb am na ay kër yu doon xataraay parce que waaye dinaan ñëw dinaan ñëw laal vingt millions ne yoo xamante ni yëngatu na parce que comme tey ñu ñaar ñu ne ñu nekk di liggéey mm-hmm. yow nga sama mm-hmm. noo may xoolee après ah, ma ne quinze millions ba séddale benn un million lay wax waa koñ ba. waaye léegi damay sigi dama dama dama lay xool dama. sa kanam waaye ka waaye ka déclaré sax moom moo tax ne am na ñu déclaré. am na ñu wul. Mhm, am na ñoo xam ne déclaré wuñu. am na ñoo xam ne eh, déclaré wuñu. mais mais nag euh, lii dafay wane. dañu yërëm ñi nga xam te ne ñoo di euh, jeune reporter yi métti na parce que yaakaar naa liggéey bu colossal bi yëpp ñoo koy def tey jii jeune reporter bi bu gënul dem sur le terrain yooyu nga xam te ne yaay toog di présente journal amaan na sa journal du jàll dem sa faa. liggéey bi yëpp ñoo koy def mhm. te millions yëpp bu ñëwee si poche. ci poche patron de presse yi lay dugg liggéey bi ñoom ñoo koy def. loolu moo tax nag ma ne dafa jottee ji aide à la presse ñu xool naka lañ koy joxee. aide au patron à la de la à la presse. aide au patron de la presse. parce que patron yi ah oui patron yi la ñuy dimbali. léegi boo leen ko joxee ñeneen ñi dem takk ji si ñaareel. ñi dem yëgali ci seen kër ñi dem yëgali ci seen ay kër ñi amoon bor fay ko. benn caméra sax ñu ko si jël dogal bii état bi jël yaa xanaa xam nga ñun jeune reporter sax ñun ñoo ci war a gën a mën a taxaw parce que ñun ci boppam lay aider ah oui ñu lay mais mais moo tax ma ne xam nga fi ñu toon bu ñu ñëwaatee di séddale waat dalee leen bu ñu séddalee sa ëllëg sa nañ xam ku nekk la mu am. te xam nga ñi bu ñu xamoon ne bu ñu ñu séddalee sa ëllëg sa ñëpp xam la ñu am duñ ko defee nii. mais léegi nag ñi ñëw bees nii bu déwénee fi ñu toon ni wala bu ñu def état la presse balaa année bee jeex da lay leer ne bi aide à la presse dina am. non je pense que non dinañ ko corriger. je ne pense pas que dinañ ko corriger peut être mais xam nga ami fan la problème bi. non 2025 de parce que li mu war a régler nii gëw dina ànd ak aide à la presse. dañ leen a mere. dañ leen a mere. mais ami xam nga fi ñu toll nii. nañ leen punir année bi. su fekkente ne tey ji yow ci biir kayit yi ngay remplir. Mhm. dañ ne quitus fiscal daf see bokk. Mhm. mais am na ñu bëri ñu am yenn montant yi kon ñoom fu ñu jëlee quitus fiscal te ñoom ñoom amee amee ñi ña tey ji tamit da ngay déposer caisse de sécurité sociale déposer IPRES ak yooyu ñu def see bokk tey te xaaju def defuñu ko. ñu jël ko encaissé fu ñu ko jëlee tamit. deniers publics lañ lekk. waaw mais xam nga kon da ngay doo doo comprendre que ni magum bi dafa dem ba ci euh, fiche bi ngay remplir sax pour am aide à la presse. bu doon dañoo respecté fiche boobu rek ñu bëri si ñoom tey du ñu am aide bi. wala tuuti la ñuy am na ñoo xam ne lii lii lii ñi ay dealer ah mais lii mënul weesu lii la. léegi nag euh, loolu baal ma yenn patron ay. léegi léegi nag loolu nag il faut ñu jooyanti ko balaa balaa ñu avancer. sinon il faut ñu jooyanti ko jooyanti contrat yi nga xam ne. Ah, également dañ koy amal ci da gis koo xam ne day liggéey deux ans trois ans du am contrat da ngay xëy un bon jour rek ñu remercier la. wala di la fay salaire boo xamante ne boo ko passé aller retour sax mu jeex. mu jeex loolu lépp am na parfois da ngay nekk ci kër. añ sax doo ko am ku mel mooy buy jënd ji añ di la jëndaale. autre <laughs> a ah loolu du yoon de. man bokk ci danaa commencé bokk ci syndicat yi sax. ah waaw yow de yow de war nga koo mën de def. man bokk ci kaas rek ngay def kaas ak xuloo rek ngay def kaas ak xuloo rek ñi la xamul moom ma seedeel la ko fi am ni kaas ak xuloo rek lay def man mi sax day xuloo ak man. <laughs> ñëpp lay ci kër gi kaasa xuloo rek la amee di def. bul ma yàq nag voilà ñu daal di wéy li nga xamante ne moo di waxtaan bi wax ci suñu grand ma